أمرهم أمرهم شورى بينهم أها waxtaan yàlla ko tere ak yonent bi bañ ko waxtaan taxul waaye jullita amul jotu waxtaan waaw jullit moo amul jotu waxtaan xam nga lu jullit am waxtoom diisoo waaw jullit moo amul jotu waxtaan xam nga lu jullit am waxtoom diisoo waaw diisoo am ruhum al amr du baatu arab arab yi dañ ko abdu ñu ngi ko jële ci arab yi yéen yi mooy firi commandement ci ñoom ci la ko arab yi soog a dugal ci lu ne al amru bil maaruf wa nahyi munkar amruhum shura baynahum lu ñu bëgg rek dugal ci amru waaye du baatu arab ci arab yi yoon lañ ko jële waaw waaye amruhum shura baynahum am na solo te kenn ku ne information bi nga am di ko indi ci mbooloo mi segg ko ba mu sell ndax ngi daje si ñëpp ci la ñuy jëriñ sa bos sama bos bosu keneen la dajale jëriñoo ko kon bul jël mukk lu la wóoru waaw ndax bu ku nekk jëlee lu ko wóor rek muy suura muy suura amruhum suura baynahum waaw bu ku nekk jëlee lu ko wóor rek muy suura amruhum suura baynahum waaw bu ku nekk jëlee lu ko wóor te sell te fas ci yéene jëriñ mbokkam ñu daje wax ko rek mu nekk suura amruhum shura baynahum programme ci génn ñëpp doxal ñëpp doxal amruhum shura baynahum ragaloo ca dara ndax sànni la ba mu jeex fontoo woo ko jëli ci fuyu faya dëgg pir nga nekk moom nga fi indi boo ko dee wax doo gestu mukk sax ragaloo ca kenn shura amruhum shura baynahum a amruhum shura baynahum loolu mooy diisoo dëgg mooy concertation dëgg waaye bu dàqoo kenn ku nekk rek fen wu mu dégg rek lay indi te fen du tëral programme dootul tudd shura najwa lay tudd te innama najwa min ash-shaytan waaw waaw dootul tudd shura nag najwa lay tudd te innama najwa nag mina cheytaan lu tax lu tax mag bu dee waxte li ma wax ragalu ko du tëj lu buntu ba maa la ko wax waaw mag bu dee waxte la mu wax wóoru ko dana yërlu ku nekk ci gannaaw buntu bi waaw boobu doxul wàllu cheytaani la innama najwa mina cheytaan lu tax ne chantage la ca jublu moom cheytaan li yuxzina alladina amanu وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله waaw yàlla nee na seytaane chantage la jàngal nit ñi man concertation laa leen jàngal waaye yàlla nee na góor gu wóolu bopp lu muy ragal ci chantage yàlla ko wax ci alquran de nee na góor gu wóolu bopp lu muy ragal ci chantage li yuxzina alladina amanu wa laysa bi darrihim shay'an إلا بإذن الله ها ها إنا غرغو لو بقى لو ما راجل تي سانتاز ها لو ما راجل ها ما تخ بقول إنما النجوى إنما النجوى إنما النجوى من الشيطان كو جيس موي تجلو بنت صدا واخ لا ما واخ ني شيطان يكو يوني ما واخ لنكو واخ góor gi góor gi ñëw toog ak mbubbam nag di wax lu mu gestuwul nee na maa ko yónni waaw ragalu ca dara waaw ne dara du ko ca fekk jàmm rek waaw waaw moo tax innama najwa min ash-shaytan la xayra fi kathirin min najwaahum la xayra fi kathirin min najwaahum moom la nu njëkk jàng ci Sëriñ Babacar Si